seen noppub diir ma tàbbal ci bànneex bépp coono bu ngeen doon dund ci wàllu yónnee ak jot xaalis jeex na takk ak Tab Tab Send mooy application bi mu jojjul là la y a l'interprétation euh, ce que di dit certainement le décryptage donne torture donne euh, séquestration boo ko mënee wax ci wolof pour nit ñi gën a mën a comprendre euh, boo ko fiiree xam nga xel moom kon Adji Sarr daf doon farantoog yooyu firi firi ana fagaan fiir non firi firi ah, d'accord <laughs> yaakaar naa gars yi dinañ comprendre. sama sama laamu foofu dafa xaw a takk. seen uh-huh, famille. Uh-huh. ñenn ñi dañuy foog ni sax dama koy def di tiito te xamuñu sax. air yi air yi ñuy boo jafe séeréer yi uh-huh. am problème demee côté Joal ay bu ñu wax François François la ñuy xam nga donc on a on a ce problème. en fait euh, jour boobu noonu. Euh, dafa am benn euh, ay facteur mm-hmm. maanaam ay xew-xew mm-hmm. euh, yu bëri yu dajaloo njëgale micro tuuti mm-hmm. xew-xew yu bëri yu concordant yoo xam ne dañoo maanaam niroo mu mujjee jox ma firnde ni sama responsabilité comme dama ko engagé ci xale bi di Adji Sarr am na fu ñuy toll il ma leerlu ñëpp xam. moo waraloon sortie bi waaw bu ëllëgee. Mhm. non am na li tax sax ba ma yegg foofu parce que dama ne lii wóoratul. Mhm. lii wóoratul te il faut ma ma man ma proté ma kii sama protéger sama bopp. Mhm. ndax ëllëg bu fekkee ne yëg nga waxoo mun nañ la po mun nañ la bu ñuy poursuivre mun nañ la poursuivre. lan nga ci doon ragal. ëllëg. Adji Sarr ne par exemple lii amoon na. parce que xamoo. Mm-hmm. te tata Hélène xamoon na ko. Mm-hmm. waxul. Mm-hmm. quoique la ma ca xam ndeyu mbill ji moo ko wax kii sama nopp. dégg benn bi man la ko wax beneen bi mu wax ma ko ci jeetaay boo xam ni am na nit koo xam ne tudd naa ko. par mégarde waa kër Sonko comme ñoom waa kër ñàkk jàmm. comme ñoom. <laughs> lu ñuy fu ñuy jafandu la ñuy wut ñu daal di jafandu ci waa jooju nga xam ne mooy Bougane mhm. may wax ci kanamu senegaal yëgul xamul Adji Sarr xamuma man mii mhm. mosoo leen sekk jotaay aussi jotaay mhm. te bés boobu mujjewuñu sax wax ndax ndaw si ba mu yegsee na mu waxee mooy Gabriel waaw xam xamal moom ci boppam waa ji dafa choqué. parce que comme sénégalais yu bëri moom dafa yaakaaroon ni que Adji ku ñu maanaam ku ñu fay la. muy def lii mhm. li ma lay wax ni maa ngi maa ngi koy wax. maa ngi tiim sama bàmmeel. Mhm. jour boobu laa door a ne allo. Mhm. dégg Bougane xamuma lu ma doon doyee. yaa ngi dégg. te xamul woon ndekkee man jour boobu laa xam ne Bougane xamul sax. li xew. Mm-hmm. du tout ci mbiru Adji Sarr. musul gis Adji Sarr aussi. xamul sax Adji Sarr. Mm-hmm. te man jour boobu dama sentir mu mu mel ni dafa dafa am choc parce que suñu rakk jooju Gabriel ba mu duggee. Mm-hmm. dafa wax expliquer ay affaires yoo xam ni moom dafa choqué maanaam ndóol gi Adji Sarr nekkee. difficulté yi Adji Sarr di dund. moom Gabriel coono gi muy daj pour jàppale Adji Sarr malgré le fait que. Mm-hmm. mais Adji Sarr jàppale bi est-ce que du lekk ak naan rek ak sol yi rek yooyu. war na mën a metti noonu. man de man xam nga man li may jàppale Adji Sarr sax. Mm-hmm. c'était pas ay lu jëm ci. Mm-hmm. ay euh, lekk naan. man c'était le plaidoyer réseaux sociaux yi moo waxal ko. yëgal sénégalais yi wax yi ni kii dañ ko ñu ngi koy bëgg a sànq. ñu ngi koy seetaan te du te du yoon man sama liggéey foofu la yemoon mais par la suite si laa dem ba miinanteeg moom ba xam ni que ndeke yoo moom mu ngi nekk ci précarité. Mhm. ci laa doo am ak boobu relation sax. Mhm. Euh, comme yaay ak doom. nga koy jàppale ak jàppale. Mhm. man nag Gabriel xamuma moom euh, exactement lan la ko defal mais xam naa ni mu ngi koy jàppale moom tam. ma respecté loolu. mais jour boobu nag euh, la mu ma waxoon man. Mhm. da ko wax ci kanamu ñooñu. Mhm. muy ñaari nit kenn kooku ma tudd ak keneen. Mhm. te ñaar ñooñu kenn xamu ci woon Adji Sarr kenn xamul woon lan lay dund. mais Bougane était tellement choqué dafa ne mais yéen kon lii da ngeen ko war a wax nit ñi yëg ko. parce que les gens ne savent pas dafa choqué quoi. après kii ne ko si laa ko ne invité ki mu wax invité ko mu ñëw sa télé. parce que ñun Bougane par solidarité par gëm naa ni par solidarité avec Ousmane moo tax musuma eh, man musuma am accès télé Bougane ñëw naa fii am na télé moom télé yi ma jëlul parce que Bougane ci la bokk par solidarité xam naa mhm. ah, ah Ousmane Sonko relation ak Ousmane Sonko te ñu bëri dañu foog ne ñoom ñaar neexoowuñu aussi moom ci boppam mooy sàmm loolu mhm. ba jour boobu ba may wax ak moom ma naan que mhm. waa léegi doo def déclaration man ma ah dafa dafa il a botté en touche. et mhm. appel bi ci la ci après waxuñu sax kii maak moom waxuñu cinq minutes. Mhm. kii ba mu waxee ba pare mag maak moom wu ñu lu ëpp. Mhm. deux trois phrases. actuellement dafa mel ni. et ça me euh, fait euh, nga lu ma métti. ku yàlla ak ñoom. koo xam ni ba may wax ak moom yépp mu ngi sóoraale. mu ngi sóoraale digganteem ak kóllëreem ak Ousmane Sonko ñoom ñu ñëw. xëpp ko moo tax ma ne la ay nitu Sonko ñoo yàqal Ousmane sonk mhm. parce que loolu semaine yële xoolal la ñu yëkk Bougane lañu ko sosal la ñu wax. la gis nañ ne Bougane aussi dem na ba leen di saaga ci benn audio bu mu defoon. di saaga booy Sonko yeeg. mais mhm. mais mais boo ko poussé ba ci miir miir wus bi. Mhm. sës ko fa à un moment dina répliquer. man noonu laa def ak ñoom. muñ boo muñee muñ ba yegg benn seuil bi tu tu te défends c'est c'est loolu c'est humain. loolu doomu aadama moo mel noonu. Mhm. loolu yàlla sax dala ko may maanaam du baakaar. Mhm. n'est-ce pas donc may waxaat encore une fois na jooju noonu xoolaat ay collaborateurs am. Mhm. na lu bari ci Sénégal bii. te ñii nekk ci net bi ñoo ko ko yàqal te dañoo foog ne dañoo muus muusuñu ay ñoo xam ne la c'est des incultes dañuy dégg telluñu daal di defe ni dañuy bandi bandilu jël ay wax Bougane bu bëggoon tey moment boobu delluwaat ak Ousmane Sonko saagawaat nañ ko wax ko sosal ko dugal ko ci Adji Sarr Bougane xamul aji Sarr mosul mhm. dégg aji Sarr mosul gis Adji Sarr mhm. mais ay ñoo xam ne nee nañu Ousmane Sonko la jàppale kon il faut ñu yàq Bougane Gueye dani jël nañu Bougane di ko di ko di ko tëgg pour mu doon benn noonu usmaan Sonko mhm. benn potentiel rival te lépp ci ñoom seeni biir la du fait de leur incurie de leur bêtise maa la garantir Bougane man waxuma ak moom cinq minutes mhm. te dafa am lu mu doon santaane Amérique mais jotuma ko sax wax ndax ba ndaw si duggee waxu aji Sarr la wax bu ñun ñëpp ñun ñu sedd guy mhm. xam nga mhm. ak moom li muy daj difficulté yi mu am le fekk duñ ko dimbaliwuñu ko yi mu def exploit yi mu def et ci yooyu la ñu nekk ak moom vie boppam man donc lu ma ci xam li ma wax yëpp moom moom ma ko wax ba tey ji ma lay wax aji éducation xam nga doomu séeréeru ili la am mhm. doo ko waxloo ba mu wax la ci diggante ma musuma ko loo sax man c'est pas mon c'est pas dafa mel ni yéen ñaar actuellement relation bi ngeen amoon euh, au début amatoo leen ko parce que daan nañ la gis sax say live ngay jékki Adji Sarr di ci génn ngay jékki di waxtaan ak ak moom euh, fës boobu gisatuñ ko ci seen ci yéen ñaar ok déjà mhm. euh, bu ma sax mu ngi woote. mais dama la bëgg wax ni. on se parle tous les jours on se on se voit quand on doit se voir. mais comme dafa mel ni man xawma lan moo nekk autour de cette affaire la Euh, du côté de des es des waa Sonko. ba ñu sañoon tey ñu dégg ni bàyyi naa Adji <laughs> gisoo ba ma ba ma waxee woon ni que sama mission je l'ai terminée. mais man sama mission lan la c'est pas plaidoyer. du waxal nit woon fexe ba ñu dem procès yooyu noonu. fexe ba ñu dem procès mu xam nga mooy sama mission. Mhm. parce que dafa am ñu doon wax nit que procès du am. Mhm. di def influence. am benn force de frappe du mensonge boo xam ne Ousmane Sonko da ko am ay intellectuel menteur ñii ay journaliste lañu ñii ay enseignant lañu dugg ci tele yi di influence ne dossier bi dafa vide classé sans suite procureur sax du kii man devant cette menace là. dindi justice par rapport ak benn doomu Sénégal ndax dafa néew doole. Mhm. te ka mu joteel di Ousmane Sonko. ma ni non je vais prendre mon courage à deux xeexal xale bi. parce que mhm. li mu war a dékku ci mhm. ay saaga ak euh, maanaam li mu soxla. bu fekkee ne ñi am partie ñoo mënut a dékku la force de frappe du mensonge de Ousmane Sonko masta xale boo xam ne parents yi amuñu sax. Euh, dison mhm. amuñu moyen mhm. bu ñuy connecté woo quotidiennement chaque jour il fale ma ñëw apporter man sama sama sama mbooloo mhm. sama savoir faire sama expérience samay euh, connaissance réseau li ma ci mën li ma ci yàlla defal ci capacité pouvoir de capacité de frappe force de frappe ma indil ko ko pour que Sénégal yi déglu ko que Sénégal yi xam ne dañ ko war a respecter ñi mel ni man xam ni Sénégal kese moo leen ñëw ñu ñëw ànd ak man ñu taxaw ubbi bëtu Sénégalais yi mm-hmm. yée leen jox leen les vrais la réalité li nga xam ne mooy dëgg mais pas ñu continuer leen bàyyi waa côté que Ousmane Sonko di leen gëmloo loo xam ni dara du ci dëgg mm-hmm. dara du ci dëgg actuellement Adji Sarr mu ngi ci Gabriel Kane ba léegi wala fu mu nekk mais nekkul ci Gabriel Kane c'est-à-dire du ni ñoom ñoo bokk que bokkuñu kër kon dëkkuñu. mais je pense pas je pense que bu dee mës nañu bokk kër tam yàggul. Mhm. c'était provisoire. Mhm. pour que le temps que moom mu aménagé wu quoi. mu mhm. am aménagement bu ko permettre plus de liberté. d'accord voilà mais pour ce que j'ai dit dans mon live je n'y change pas un mot. parce que c'est la vérité. man doo leen ma gisal vaar ma wax lii tey ñu gis lu dul dëgg suba. yàgg naa fi presque dix ans après dix ans doo leen gis benn vaar man ma wax nit mën ko weddi comme Ousmane Sonko nga xam ne chaque jour bu waxee tey ëllëg sa ñu génneel wala dix minutes après ñu génneel ko vaar. Mhm. wala ay waa këram. parce que je tiens à la vérité dëgg moom moo may booleeg sax ak nit parce que du ma dugg ci ay compromission. Mhm. du ma sama dignité du ma ko hypothéquer. pour setal nit. voilà mais am ak moom benn problème nag. Mhm, mhm. sa euh, daanaka sama doom la sama mun naa nekk yaayam. Mhm. je pense et quoi. c'est un détail. et ça arrive dara ci seen relation mais amu ma amuñu relation personnelle. relation bi ñu am euh, maslaa la. dañuy maslaa. maanaam euh, boo ka nga bokkal bureau. ngeen war a bokk li ngeen di. liggéey tase moo leen di boole. voilà ci affaire liggéeyu Adji Sarr moo ñu boole. ci biir liggéey boobu on n'a pas besoin d'être amis. Mhm. on n'a pas besoin de se de s'aimer. Mhm. juste besoin que Adji ait la paix, qu'elle en paix, qu'on s'occupe bien d'elle, qu'on la protège parce que in fine, c'est le devoir de l'État. Mhm. parce que loolu dafa nekk dans la charte des droits de l'homme dëkk boo mënti dëkk boo tëlee réew moomu moo am responsabilité yow aar la dundal la la nga xam ni mënoo ko defal sa bopp état moo la ko war a defal. donc dans ñoo xam ni que dans le cas de Adji du du privilège. Mm-hmm. c' est une norme ok c' normal moo tax nga gis dans les pays développe ñuy am ay services euh, assu assu kii social. Mm-hmm. ñu leen di jox ay euh, lu ñuy lekk. Mm-hmm. jox nit kër. jox ko euh, dimbali ko sax mu jënd oto. parce que dafa yor ay doom parce que dafa dem xool nañu xool ay li muy am. li muy fayeeku. xam ne mën a mënu ko tële na donc dañuy ñëw jàppale ko. looloo tax ñuy fay impôt lii ñu defal Adji Sarr mhm. moo tax ñuy fay bokk na ci li tax ñuy fay impôt ci réew. comprendre nga ba tey ñu ñu ñu ñu wéyal euh, li nga xamante ne moom mooy émission bi wax euh, ci mbiri ki nga xamante ne moom mooy honorable député Coura <laughs> bi ñu ko defee député yaakaar naa su ma juumul fekku la Sénégal euh, mu jur polémique nag ci réew mi ndaxte jamono boo xamante ne ñu ngi naan ñeneen ñi xeexal Macky Sall ñoom Fouta Tampeek ñoom ñoom Hélène Françoise fu ñu nekk ba ñuy def Coura Macky député ak yooyu noonu député gi nag sénégalais sénégalais yi nouvelle bi bett ñu bëri ndax yow bokk nga ci ñëwu bett. Euh, non franchement gëm naa ni que liggéeyal na président lu tax mu war ko mën a def député. Mhm. te vraiment loolu euh, écoutez président Macky Sall dafa baax rek. c'est quelqu'un je pense ku mën nitam et malheureusement parfois euh, les plus bruyants ne sont pas forcément les plus compétents mhm. man ba may xeex nekk dans l'opposition mhm. benn jigéen laa doon gis muy muy kan Daba Macky te mu nekk Touba kooku daal laa xam ne daal doon naa jékki gis mu dugal vidéo di xas ma ba ma ràpp kura kura nee na àll bi ba muy ba muy metteeg yooyu yëpp président Macky Sall moom rek la gis foofu boobu fan ngeen nekk non euh, lu ci réseau yi loolu lu leen ci réer rek laaj leen ma man may bibliothèque may bibliothèque kii réseaux sociaux yi euh, y avait Khadim bi nekk itali ak euh, Daba Maki sinon amoon na groupe boo xam ni gars yi dañ ko constitué woon pour m'éliminer pour mën a éliminer euh, Assane Diouf maintenant euh, aujourd'hui lu sotti moom xam nga day xam nga un président président dafa neex a bëgg puisqu'il a moom mooy nommé au comment on dit pour ñenn ñaa ah, président dafa donc c'est il voit les avantages mais xam naa ñoo xam ni xeexal nañ ko amuñu ci benn euh, kii privilège te ñoo fi jiitu fuuf jiitu fi tamit Mimi Touré euh, man personnellement euh, j'attendais pas à ce que président def ma député nit ñi ñooy wax rek boole ma ci liste bi mais def naa ni ñu mel ni ay je pense Daba Macky ak Khadim Gueye ce son les deux vétérans des réseaux sociaux qui étaient face à moi quand dans l'opposition man honnêteté intellectuelle moo tax duma ma bëri xarit parce que maintenant pour les nominations moom mooy choisir ku ko neex mhm. te loolu c'est son prérogative bu ko fonction may la mais je sais que euh, dina rectifier yenn euh, dis euh, yenn euh, discrepancies ci choix yi mhm. et parce que mën na mën na ko gën a renforcer de, de, de, se, de se doter d'une force de frappe, euh, you know, pour mm -hmm. non, au-delà d'être acerbe, mm au-delà d'être capable mm de, de répliquer, nous avons aussi le bagage euh, qu'il faut. dans la réplique. lu gis nañ ne gis nañ ni ñi nga xamante ne ñoom ñooy ànd nekk ci entourage euh, président Macky Sall coow dafa bëri ci seen biir ni ñu doon nit ñi dañ doon xaar ngeen juboo di demalanteeg yooyu mais ku ci nekk dafa mel ni da ngay xàll jëmale sa côté. mais amoon na ni ñu koy waxee ñoom d'habitude au début. ba ba àll bi di lëndëm. ñëpp dañoo bootu woon sama gannaaw. ba muy métti ñuy lakk kër yi ñëpp ñëwoon sama gannaaw mais xam nga fi mu ne ni combat bi euh, c'est gagné. on a gagné, on a gagné <laughs> la bataille de l'opinion donc maintenant chacun euh, pense que am na lu mu ci mën a moom jël en tant que euh, gain en tant que euh, xaw ma nan laa koy waxee loo xam ne da koy njëriñ donc ku ci nekk yoonu boppam la bëgg a def et malheureusement ça dessert davantage que muy am njëriñ pour le président bu fekkoon gis nga ba ñu nekkee ñun benn say euh, kese. je pense que ñenn ñu bëri defuñu woon yenn erreurs yi mais gis nga beaucoup d'erreurs qui sa fond parce que les gens dañoo dañu dañoo def euh, une aventure prématurée parce que réseaux sociaux dafa dafa tumulte dafa dafa maanaam dafay dafa mel ni àll bu lëndëm il faut nga miin ko il faut que nga xàmmee garab ya ca ne foo toll ci dox bi nga xam ni bii façon lii danger bi mooy làkku ci gannaaw espace bu mel nii Euh, boo déggee benn bruit nga xam ni bii genre animal dangereux moo <laughs> mooy mouvoir et bii arme laa war a jël par rapport à ça malheureusement loolu expo euh, ñu ci bëri amuñu expérience bi encore mm-hmm. parce que dañu euh, maximum ay ay un an mm-hmm. de présence dans les réseaux sociaux taxul nga xam réseaux sociaux mm-hmm. la preuve dañuy refaire les erreurs yoo xam ni man samay adversaire defoon nañ ko ma ma maîtriser réseau euh, euh, euh, attaque yu mel noonu naka lañ koy xeexee. kon kon kon bu ci ñëw du la du du du la du la attaqué du ni ñu koy waxee sax. waaw du la du la affecté. je je t'assure damay seetaan nit ñi di reetaan. mbala ma gis nit di di di ni koy waxee taw ñu nekkee xale di xandal. Mhm. ma xam fu mu jëm. <laughs> dañuy xandal rek mhm. ma xam fu ñu jëm mhm. mais du ma inquiété amul lu ma mën a inquiété. mu mel ni actuellement dañ ci ànd ak maturité aussi. absolument parce que aussi doomu aadama euh, essai erreur comme ni ma ko waxee woon sànq ci président on n'apprend pas forcément à naviguer dans les réseaux sociaux on procède par essai et erreur j'ai fait des erreurs je les ai assumées mais euh, ce qu'on veut mo à quoi on veut m'obliger mooy ma persister dans l'erreur mënuma persister dans l'erreur ñëw gis président bu am volonté politique am ay actes yu muy poser au quotidien di def am am les habits d'un président gis naa ko laa wax New York. Mhm. am jëmm président mët président. ñu nga gis ak président mhm. waa gis naa ko mhm. waaw no pas audience classique. mais entrevue en tête à tête. Euh, léegi ma gis loolu après ma ne léegi pour faire beau pour faire euh, genre léegi damay ànd ak gars yi naan dafa fi dara la ma fiy def euh, soxlawuñu ko mais c'est faux. développement dafa laaj infrastructure surtout moyen de communication nit ñi di dem ak dikk ñëpp ñiy wax lii dañuy wane seen limite quand Ousmane Sonko ko que ay nit ñi lekk ñu tali yi duñ ko lekk stade yi duñ ko lekk c'est parce que le gars il est limité parce que boo xam xamee développement nu muy basé da ngay xool dëkk bu mel ni Allemagne dëkk bu mel ni Amérique boo fa demee voie de communication moo lañ njëkk a mm-hmm. euh, tali euh, tali yi am ay 4 cinq voies pont à tout moment pour que nit ñi di dem que ça ay vite que les gens puissent aller chercher la créer de la richesse nit ñi mën a dem di jokkal xam nga mhm. d'un point A un point B yóbbu fa ay ay ay ay ay bien mhm. jaay ko jëlee fale ay bien yóbbu fële transformer et cetera et cetera mhm. maintenant li ci des man je pense euh, ci lii mooy train bi bi dem Mali euh, ba ci même si le faut di dem tous les pays qui n'ont pas l'océan tout au long ñu am li li américain yi di wax euh, warehouse ñu fexe ba ñu récupérer une partie de li nga xam ne Chine mu ngi koy def c'est-à-dire d'être l'usine du monde mm-hmm. on peut le faire parce que ñun on est a une ouverture sur l'océan mm-hmm. xam nga donc pour ñu am ay port mais je me félicite du port de Ndayane dégg naa ñu koy wax mm-hmm. bëgg naa dem visiter ko y donc le il la vision il il il il il maanaam c'est comme le bon vin Euh, c'est avec le temps qu'ils qu'ils donnent sa plénitude sa valeur léegi nag lan moo tax léegi ñu yegg ba mu mët moom jekk xam affaire bi tegu ci yoon wi ñu ne ko déedéet léegi sa tur jeex na euh, njoowaan da nga doon njoowaanu neex na léegi wàccal il faut que keneen nag moom njoowaanu ñoom parce que waa que waa opposition bi dafa mel ni ñoom affaire bi dañ ko gisee comme jouissance quoi gisuñu comme ni uti nekk président outil la pour que defar sa réew mais ñoom dañ koo gis comme outil de contrôler les richesses et de et les, et de les partager ñoom ak seen i ñooñ la preuve le maire de Thiès euh, fi ma dëkk nii Birame suley man maa ngi dégg ay yoo xam ni si ça se vérifie boo moytul di nga am problème. comme lan la parce que dafa jël ay nit ñu dëkkul sax Thiès. ay waa Pastef yu dëkkul Thiès indi leen recruter leen ci mairie bi jox leen salaire yu ëpp salaire yi nekk en place loolu. bu fekkee ni dëgg la rectifier ko balaa mu balaa preuve yi nit ñi commencer di ko balancer dans le net vraiment tu as envie de faire c'est la démocratie fal nañ la c'est un accident de l'histoire mais transforme ça en essai positif. Euh, euh, euh, fal bi nomina nomination bi sax fal bi li ñu koy wax da nga jàpp ne accident la. mais accident la parce que sénégalais dañoo mën a folli te bu ñuy folli du ñu calculer kan moo nekk en face la ñu def ci ci maire yi nii di ko rëccu. noonu la ñu def te yàlla nañu ci yàlla musal yàlla ci yàlla musal parce que noonu la ñuy def euh, di dof dof lu fi ba. ab présent Macky Sall rëcc leen. rëcc leen ñu doog a toog nag yenu seen loxo di jooy. man nag yàlla dafa def man damay teel a damay teel a comme yaakaaruma woon kenn ci àddina dama teel a xam su ma gisee lu jaadoo ak lu jaga lu jaga wax dama koy wax quelque que soit saaga yi may saaga quel que soit liñ may jiiñ. man kenn mënumaa jënd parce que la may am am naa ko ba pare dund naa ko ba pare lu ma dundati bénéfice la lu ma amati amul lu ma mën a jaaxal donc man lii may def nii jaamu yàlla laa la wax Sénégal yi nañu ubbi seen bët président Macky Sall Angela Merkel maa ngi doon joxe exemple ba mu commencé dañ ko doon reetaan à la fin def na xaw ma quatre xaw ma cinq mandat ñun dañoo gën a démocrate allemand yi Hmm? suñu constitution même bu fekkoon ni sax dafa wax euh, ay ni ay yooyu ñuy wax seen waxu waxu dof yooyu ñuy wax dama ne dafa réew mi amul temporalité yow boo gisee sa kër sa entreprise nga teg fa nit muy liggéey nga defaloon ko contrat deux ans ne ko yow benn yoon lañ koy renouveler mais yow bi moom entreprise bi boo demee ba gis ne kii liggéey bi muy def kat dafa méngoog li ma soxla doo xool nooy fexe ba euh, defalaat ko beneen contrat. mais sénégalais yi fal bu tamit bu fekkee tamit ànduñu ci. ban sénégalais moo fi ànd ban statistique ngeen gis loolu na benn nit toog di wër bu taxawee garab bu gisee garab sax taxaw garab bi di ko expliquer defe ni mën na influencer garab bi. daa wax a wax wax ba bu rombee taatu garab sax taxaw ak garab bi naan ko gis nga troisième membre du fi am passation de ñuy wax muy jël le complexe de Thucydide le le le le piège de Thucydide. loo xam ne réew ak réew la mooy maanaam réew réew bu am doole bu gisee beneen réew di fël naka ko mel ni dafa koy diiroo mbagg day indi ay guerre ci réew yi mm-hmm. mais loolu ci côté réew lañ ko wax waxuñu ko ci diggante ay doomu réew moom mu jël loo xam ne ñu ngi ko expliquer ci mbiru relation internationale jël bëgg ko di manipuler ay nitam naan leen waaw moo tax en général dans les pays y a ce problème lié à la passation du pouvoir ban passation pouvoir le complexe de trucide c'est c'est lié aux relations internationales des pays étrangers en compétition pour le leadership dans un domaine dans, dans le monde mm-hmm. c'est pour vous dire faux comme un billet de dix mille dollars dafay wax loo xam ni leer na ko lu dëgg mu koy wax sénégalais parce que dafa compter le fait que majeure partie ñi koy déglu jànguñu ñu comprendre principe yu mu leen di di mu yu mu leen di débuter te souvent day nekk hors sujet Euh, euh, suñu dernière question euh, Françoise bëgg nañu mu laale ak actualité bi nekk na loo xamante ne du sa domaine nekk na loo xamante ne aussi du wàllum politique mooy coowal Bambaali yaa ngi koy dégg en tant que mère en tant que jigéen tey naka nga gisee soxna si nga xamante ne dafa génn di wax ni moom moo ko tooñ ñoom ñaan ñu am doom mu bañ a reconnaître xale bi yow mi nga xamante ne aussi dangay xeex cause yu jigéen naka nga gisee loolu. bon écoute fi Euh, joxoon nañu moyen bu nit juree doom ñu mën ñu mën a vérifier que ni doom bi doomam la euh, parce que aussi damay bëgg di fàttali ni man droits humains lay njëkk a défendre maanaam du defuma discrimination ci góor ak jigéen ku ñu tooñ rek dama lay jàppale mais rawatina jigéen lay gën a jàppale laa gën a sawar di jàppale parce que ñoom la ñu gën a néewal doole mm-hmm. ci biir jàppale jigéen boobu du ma tooñ du ma salfaañe ak ak yëlefu góor donc situation yu mel noonu yoon a ngi fi na dem porter plainte ñu dem def ay test de paternité bu fekkee moo ko jur mu reconnaître par force doom bi da koy reconnaître bala gàcceem lay doon mais par contre am na lu ñuy wax euh, jigéen yi di forcer nit paternité mm-hmm. loolu tam euh, loo xam ne la gis nañ ko jigéen. Euh, piégé go fexe jural ko doom waxtaanuñu ba méngoo ci ay kàddu ne dañuy am doom loolu violation droit góor la parce que da nga ko imposer responsabilité imposer ko ay dépenses imposer ko benn dund boo xam ne dafay soppi moom dundam mën na am que moment bi nga ko wutal doom boobu fekkoon na moom moyen financier mu ci prévoir dem def formation bu koy yokk euh, ci côté Euh, comme que ni bëggoon na par exemple mu nekkoon euh, amoon master mu ne damay dem defi un doctorat léegi nga jugal ko doom sans tàggu ko projet boobu dootu ko mënati def yàqal nga ko parce que loolu yàlla a la paternité forcée il faut pas non plus en défendant les femmes qu'on crée des victimes chez les hommes il faut que toujours ñu jël mesure bi xool fee yi juger ko sans état d'âme man duma jeng ci côté jigéen duma jeng ci côté googu mais jigéen bu ñu tooñ laa gën a sawar ànd ak moom xeex euh, pour ko ñu jox ko ay akam ak yelleefam mm. donc nañu dem ñoom ci yoon ñu def test ADN. bu fekkee moo ko jiw non seulement mu reconnaître ko mais ñu jox ko daan boo xam ni day représenter frais yi mu waroon a frais ci xale bi pendant toute la grossesse durée de la grossesse ak euh, toute la durée du ba xale lu mu màgg mm-hmm. et éventuellement dommages et intérêts pour la maman mm-hmm. pour diffamation genre difa euh, ni mu deram yàq ci loolu Euh, mu ngi noonu yaakaar naa ne euh, leer na sénégalais yi euh, am nañu ko comprendre noonu du ñu def rek lu dul bàyyi ko mu tàggatoo mbégte la ñu amoon ak contentement dal la tey ci li nga xamante ne moom mooy diaspora 221 kàddu yu mujj yi lan lay doon. waaw xanaa di leen jaajëfal. di leen encourager encore une fois ngeen continuer doon kàddu la voix de sans voix di jox chance képp ku am lu mu bëgg a wax te mu ñor ko. kenn bañ a xeeb kenn bañ a bedd kenn jox ñëpp euh, égalité de chance mm-hmm. même au sein de diaspora 221 mm-hmm. ñun ñëpp ñu ànd tabax Sénégal un Sénégal de paix mm-hmm. de prospérité et de responsabilité di nuyu nag bu baax autorités yi euh, di jiital ci nuyoo bi kilifa diine yi kilifa aada yi après ma teg ci le président de tous les Sénégalais le président de tous les Africains, son Excellence Monsieur Macky mm-hmm. son épouse, euh, que je respecte mm-hmm. et que j'ai appris à comprendre euh, du fait euh, de son dévouement pour la cause de son, du Sénégal mm-hmm. à travers son mari. et may rafetlu taxawaayam. gis naa ko coono bi muy àndal jëkkër jëkkëram euh, à des rythmes de travail extraordinaires et elle est à ses côtés. en tant que femme en tant que mère de famille je sais que c'est beaucoup de sacrifices donc euh, yal leen yàlla may jàmm may leen santé lafal leen euh, cat te may leen vraiment lépp lu ñu jublu pour Sénégal mu mu jox leen euh, mu jox leen ci réussite totale te mu aar leen musal leen ci non privé yi daal parce que bëri leen ci ñoom tam ñoo xam ne ils sont assis presque sur deux chaises ak ñoo xam ni dañ leen jàppe comme propriété privée te defe naa ni boo bëggee président de la république képp ku am compétence képp ku ko mënal dara da nga ko war a yaatal euh, dalal ko faciliter ko liggéey bi mais bu fekkee ne da bëgg président de la république képp ku ñëw mën ko apporter dara nga koy galgal di ko fakastal di yàq deram di ko di ko tilimal di ko nakaral pour ko mu bañ a mën a def la mu doon def pour pour président def naa bu yàggee nga ñu considérer la parmi les ennemis du président. waaw man ba ma fi toogee di xeexal président wax naa leen ko Daba Macky moo fi nekkoon ak Khadim Gueye te maak ñoom dara sama diggante ak ñoom mu ngi rafet ba tey mm-hmm. euh, chaque jour ñu gën ma pousser mm-hmm. à que ma retrousser les manches mm-hmm. jàppale président te defe naa ne euh, ba ma ñëwee côté pouvoir dans les réseaux on a senti le poids la différence. te damay ñaan képp ku bëgg président Macky Sall nga ñëw ñu ànd ensemble jàppale ko xam ni jàppale président Macky Sall mooy jàppale Sénégal. merci beaucoup mu ngi noonu suñu maman Françoise Hélène Guèye la ñu dalaloon tey sikk ak moom waxtaan boo xamante ne yaakaar nañ ne kàddu yi am na njëriñ te euh, déggin bi tamit euh, neex na nekk na loo xamante ne def na ko ci respect def ko ci li nga xamante ne moom mooy équité ak égalité ñu koy sant bu baax a baax di ko gërëm amoon mbégte ak contentement dalal ko ci li nga xamante ne moom mooy de diaspora 221 ñu leen di sant bu baax a baax di ko sant aussi ci dalal bi ñu dalal fii ci këram ci diwaanu Thiès di leen euh, jox dig daje ba beneen ak beneen invité jërëjëfal nañ leen bu baax a baax yéen ñi nga xamante ne yéen doon lu ci li nga xamante ne moom mooy diaspora 221